Euh, ni leen ko diggee woon ñu ngi ci seen ñeenteelu émission ci wàllum euh, plante ci wàllu meññet yi seen émission bu mag bii di gëstu bu ko defee ñu ngi tolloon ci laurier ndax jeexul woon ndax njariñam yu bari kon ñu ngi dellu siwaat fas yéen leen a dégtalaat njariñu laurier ku ne xam na ni waxoon nañ ci ay njariñ yu bari ba ku nekk ñu wooyee fu ne ci àdduna waaye nag jeexutoon daldi rek dañuy bañ émission yi di gudd ndax jot gi bariwul waaye dañuy ñëw léegi ci plateau bi defal leen quatrième émission bi te mooy lu jëm ci wàllu laurier ba tey. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar di am mbégte ak sant yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ci dellusiwaat ci émission bi. li leen ko waxee léegi ñoo ngi ci plateau bi nag parce que leen indil exercice bi maanaam. njàngale mi ni jàngale tey ci laurier muy deuxième partie bi ñun ñëpp xam ngeen ni laurier dafa riche ay ay ay ay ay yu bari yoo xam da ciy riche moo tax euh, doonul xaj rek ci benn émission moo tax ñu def ko ñaari partie donc bu ngeen complété partie bu njëkk ba nag ak partie bi di ngeen mën a am lu xaw a am solo ci ci ci ci mbiri laurier ah kon ñu ngi tolloon rek ci wax ni dafay reesal ñam laurier dafa baax ci euh, nga lekk lekk mënut a ci sa biir indil ma laurier moom kon présenté woon na présenté woon na leen ko waaw waaye li ñuy jublu rek mooy koo xam ne danga koo bëgg a da koo bëgg a ci ab fànn wala nga bëgg koo laajte te bëgg koo xam ci langue bu mu mën a doon rek euh, di nga ko mën a xam incha allahu rabbi di ko mën a xam ci ci fànn bu mu mën a doon kon waxoon nan ay sens yu mu am ci wàllu yaram kon nit ki nga xam dafay lekk te du rees ci la ñamoon booy lekk te du rees jëlal juróom-ñaari xobi laurier wala juróom-ñett nga def ko ci 3 litres 3 litres 50 3 litres et demi nga baxal ko ba mu ñor saa boo lekkee ba suur nga naan ci saa boo lekkee ba suur nga naan ci boo ko defee dina dem ba loo lekkate dina rees te rees bi dina gaaw ndax lekkate reesoo dafa bokk ci liy indi ay jàngoro yu baree baree bëri kon euh, euh, euh, dafay dindi li ñuy wax ballonnement biir boo xam ne dafay sol air ballonné waaw nga xam ni dafay jooy yenn saa yi da ngay rus sax di nga toog ci ay nit biir bi di jooy rek xam ngeen ne loolu musiba la kon bu fekkee jër nga laurier di ko naan comme noonu ñu ko waxee ci euh, nu oyof dina ko dina ko dindi laurier suñu mbokk soxna yi nga xam ne yenn saa yi dañuy jël poids yenn saa yi nga am repos noppalu rek jékki-jékki sa pois yéeg su fekkee danga bëgg a si pois ci lu gaaw a gaaw jëlal laurier di ko def su fekkee mën ko ko boo ko baaxalee ci noonu mu oyofee ba da nga jël benn doomu limon nga paccal ko ci soo ko defee di ko naan dana kii dina dina wàññi sa poids soo ko defee une semaine boo xoolee sa poids di nga gis dana wàññi ku baax beneen bi ci des mooy ku am cholestérol cholestérol bi sonal la maanaam graisse gu baaxut gi nekk ci nit nga xam ni ay musiba yu bëree bëree bëri lay indi yu bëree bëree bëri jarul ngay jëlal laurier nga baxal ko ba mu ñor nga jël kuddu nepp nepp di ko ci def nga di ko naan suba ak ngoon boo ko defee incha allahu rabbi sa poids dana wàññeeku te wàññeeku bu rafet lay lay lay wàññeeku laurier dafay gindi suukar buy yéeg xam ne ni tàndarma tàndarma moom yàlla dañuy def ma boo xam ne lu yéeme la parce que tàndarma rek moo loo xam ne dafay régler suukar bu yéegee mu wàcce ko ba mu yem bu wàccee mu yéegal ko ba mu yem loolu tàndarma ko def nag dafa bokk ci di wàcce suukar ñi xam dañu am jabeti diabétique yi nga xamante ne rawatina diabétique ay type B diabète yu bon yooyu nga xam ne bala bala ngay lekk sax danañ la piqûre ngeen baal ma diabète yooyu bu fekkee da am laurier di ko baxal di ko di ko naan daf lay dimbali parce que suukar dafay dafay dafay dafay dafay wàcc. kon suukar bu yéeg la la laurier di dindi ah ñu bàyyi ci xel bu baax laurier dafay anti stress parce que nit ki yenn saa yi nga nga nga nga dem ba li ngay xalaatandoo ak li ngay liggéey jàpp la ba nga xam ne ngay stressé yow dafa indi gaaw a énervé stress bu bari ndax yenn saa yi nga dugg sa service lu ñu wax rek nga mer nangam nangam nangam yooyu yëpp stress da koy indi te stress boobu laurier da koy dindi defaral laurier guddi bala ngay tëdd nga baxal ko ba mel ne tee nga nga di ko naan ba noppit di ko faral di suuro suuro gi nag saa yu ma ko waxee ndox laaj jub ndax xam ngeen ni mbokk yi il est temps ñu xam ne suuroo garab ci safara mook tux ñoo yam képp ku koy def euh, mën nga am problème poumon loolu nañ ciy bàyyi xel bu baax su fekkee mënta ñàkk it soo koy def na nga takk masque bu fekkee suuraay yi nga xamante ne dafay dindi ay cet wala yooyu mën ngaa takk masque sa kanam nga suuru ci sa yaram kon laurier dafay dindi suukar si yéeg te anti stress la kon dégg nga kon laurier dafay dégg li ñuy wax sinusite sinusite mooy am soj mu chronique nga xam ni lu la xeeñ rek nga am problème xuux xuux lu la xeeñ parfum bu foor cuuraay lu la xeeñ nga am problème te xam nga cuuraay ci nit la bokk ndax mënoo am sa soxna mu di cuuraay dina ko taalal kon laurier da koy dindi loolu sinusite ni ñu koy dindee nag mooy danga koy baxal moom ba cuul jigéen nga di ko di ko xencu nga boole gi comme noonu ma ko waxee na oyof rek nga di ko naanaa ah. euh, laurier dafa am loo xamante ne mbokk yi comme dal ku ne war ngaa góor góorgóorlu gaaw yàlla teggil la ko mooy li ñuy wax mauvaise haleine gémmiñ guy xeeñ gémmiñ guy xeeñ day tax doo mën a wax ak kenn rawatina ñi ngay liggéeyal tey jii dafa am ñaari façon am na benn gémmiñ guy xeeñ boo xam ne ci gémmiñ gi rek la yam tey boo ko doon xëy di ko raxas téeméer yoon yi du tey gémmiñ gi day xeeñ loolu feebar la am na gémmañ yu xeeñ yoo xam ci biir bi lay jóge parce que nit ki dafa am constipation li waroon génn génn dem ba mu indil ko mauvaise haleine boo xam ci biir bi lay jóge souvent bu xawee géex wala dara dafay génne ci gémmañam te day xaw a naqari du neex a digérer loolu xam ngeen ni laurier da cee gaaw lool nag nga koy def mooy da nga koy naan ak di ko gallax di ko tuur ni nga koy naanee nag toujours rek mooy dafay oyof xayma booy daal juróom-ñaari xob saa boo ko amee def ci 1 litre 1 litre 50 nga baxal ko di ko naan su da nga koy gallax di ngay jël sa ba mu fees nga baxal ko ci baraada ba mu ñor nga def ci citron wala nga def ci neb-neb di ko bomb soo ko defee mauvaise haleine bi dana la bàyyi àdduna ak alaxira dootu la dootu la dal daf koy dindi dindi bu gaaw a gaaw gaaw dégg nga euh, kon gaaw fàtte daf koy dindi maanaam loo waxanteeg nit ki fàtte ko loolu li ma wax sànq daf koy indi stress ju bari da koy indi ak bopp bu fees kon laurier dafay digérer loolu ci lu gaaw a gaaw a gaaw ah dafay dindi tamit cat waaye laurier nan lay dindee cat loolu xëy na dañ koy dugal ci biir mul lasraar gi du doon ci épisode yi waaye dafay bokk ci ilmu lasraat gi dafay dindi cet dafay joxe bayre moom lorier kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax waaw dafa am loo xamante ni peau crasse lañ koy wax peau crasse peau crasse euh, ñii def li wax liy wax lu mel ne pédicure wala manucure wala traitement de visage ñoom xam na lan mooy peau de crasse tey boo demee boo demee ci pharmacie yi wala nangam di nga am waaye laurier nag dafa bokk ci li yàlla def mu di ko dindi waaye anas boobaa nañ la koy dindee mbokk yi ma jox leen secret mbokki soxna su ngeen bëggee démasquer seen ay maquillage wala ngeen bëgg euh, li mel ne ay tomb-tomb yu weex yi nekk seen kanam di deñ jël leen laurier ngeen baxal ko def ci tuuti carbonate tuuti carbonate bu ngeen ko sëlmoo ab diir ngeen raxas seen kanam bu ngeen koy def seen kanam dina leer dina leer xet ba foo leen génnee incha allah bu leen seen borom kër gisee dana dina dina dina dina dina dina kontaan kon yooyu bokk na ci xam-xam laurier du jeex waaye jamono ju jot dafa bariwul te bëgguñu di di di di guddal ba nit ñi duñ ko mën a seetaan looloo tax ñu koy gàttal kon bu leen fàttandi abonné ñoo ngi gërëm rek ñëpp ñu ñuy wooyee fu nekk ci àdduna di rafetlu émission bi ak di ñu bind waaye ni ma koy waxee loolu rek lañ ci jublu buñ bàyyee suñu yitte yi ak nit ñi ñuy soxla yépp di def émission bi dañ ko def ngir tasaare xam-xam ndax xam-xam kenn du ko naj ci sa biir ndax du la jariñ ndax boo ko waxee sa doom dina jariñu doomu jàmbur jariñ sa mbokk jariñ ci mbokki jàmbur jariñ te jàmbur sax amul na ndax doomu aadama yépp yàlla nee na ci aadama lañ jógee kon lii njariñ loolu lu ñuy partagé ñaan gi ngeen ñu ñaanal doon na ko jar